الحمد لله الكريم سلم على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس wasalaatu wasalaamu ala nabiil huda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi isanin ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba ski Serigne Touba ci Serigne Touba borom Touba moo romantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal yëpp noo ngi leen di nuyu di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom jéggal nu di sant yàlla bu baax ci boole gi mu nu booleeg Serigne Touba waaye di ci toftal ñaan gun koy ñaan ci li koy neex nu koy ñaan mu bokk ci li koy neex yàggal Cheikh Mouhamadou Mountakha ba def ko yàgg gi mu doon kiimaan ci liggéey Serigne Touba bi nga xam ne mooy tool bi islam biñ ko dénk mu ne ci kanam nu ànd ak moom te daje ci ngërëmu Serigne bi di ñaan daje ci ngërëmu Serigne bi xam ngeen ni bi weer wi daataan teru keroog ca 10 août 1895 10 août bi weesu ci lañ tàmbali woon di waajal màggal di def yóbbulub màggal def nañ ci juróom-ñeenti jotaay mu nekk ci Saxum Touba TV ci YouTube bi di ay waajtaay yoo xam ni dañ ci doon laaj biir suñu bopp di ci laaj biir bokki taalib bi yëpp ngir kuy màggal si ku ne ba ci koo xam ni sax yaa nga fa nga toog màggal si woo itam nga fas yéene ko màggale ni ko sëriñ bi bëgg léegi nag loolu moom taxaw nañ ci juróom-ñeent yooyu yëpp dinañ ci dellusiwaat di ko tegaat benn par benn lu tàmbalee suba waaye itam incha allah li nga xam nag moom lañ bëgg a def ci ay waxtaan ci soññente ci ak taalibe ak soññente ci sëriñ bi ak ni ñu war a nekk ak sëriñ bi ni ko war a jàppe ak ni ñu war a doxe loolu yëpp ak jaar-jaari sëriñ bi dana tàmbali incha allahu rabbi euh, dina tàmbali léegi samedi ci guddi wala dimanche muy ay waxtaan yoo xam nag loolu nun noo koy def jëmale ko ci bokk yëpp nga xam ne képp ku bëgg a xam ci sëriñ bi aslëf bëgg ci gën a jariñu yaa xam ko mën doon kuy wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah rawatina ku su ko jébbalu loolu ay waxtaan la yoo xam ne dañ koy waajale màggal gi incha allahu rabbi am na it ay waxtaan yu ñu defoon bu yàgg dañ man ci jariñu saa su nekk mu jëm ci wàllu li ñuy wax tukkib géej gi boobaak léegi mat na fanweeri at biñ ko defeek léegi bande boobu pré enregistré woon tukkib géej gi ñu defoon ko mu yaatu lool ñu bari jot ci ñu di ko nag bëgg a dellu si waat fàttaliwaat ko muy tukki bi sëñ bi tukki woon ci géej gi bi muy jóge Sénégal ba ñu dellu see teg ci itam lu ñuy wax tuumay noonu muy le procès de trou bi ñu jàppee sëriñ bi wala bi jëlee sëriñ bi Mbàkke Baari Jolof indi ko Ndar ca bureau ba nañ ko doon àttee ak lañ ko tuumaaloon ba tax nag ñu yóbbu ko ba tukki bi loolu tax mu am loola it dinañ ko tegaat loolu am nañu ko mos a dégg lépp daal bu ngeen dee topp Saxum Touba TV eh, ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk jox leen ko ñun mu nekk seen loxo loolu yëpp dinañ ko saytu génne ko tegal leen ko ngeen déggaat ko kon nag loolu yéen mi ngi aju rek yow mi nga xam ne yaa ci yaa koy topp ah xëy na ni ni du loon loo xam ne dañuy mën a xam programme boo xam ne waaye eh, moom suñu borom dimbali na mbirum internet ba nga xam ne képp koo xam dafa abonné ci Saxum bu defee notification bi lu ñu dugal ci sàq bi rek téléphone day sonné xamal ko ni ko am na lu dugg boobaa loolu noonu la koy mën a xamee ñaareel ba itam ñii laaj képp koo xam ne loolu raw na la boo ci abonné boo duggee ci biir boo amee jot bu dugg ci biir léegi di nga défilé li ci nekk lépp ngay mën di xool di ko gis waaw vidéo yi mat na ñaari junni vidéo ba mu sosoo ba léegi yi nekk yëpp di nga ko mën di xool kon lii ci mos a raw ndax ñetti at ak nii boobaag léegi Saxum Touba ci YouTube bi jiitu na loolu war naa ëpp loolu sax kon yooyu daal bëggoon nañ ko xam ne tey nag li ñuy dolli ci waajtaay wi nga xam ne ci la ñuy tëjee nag yóbbalu màggal gi soog a tàmbaliwaat yañ indi woon di ko tegaat mooy benn gis ngeen démb ci war may Tuuba rek kii nga xam mooy ambassadeur wu Espagne ambassadrice ambassadeur ambassadeur bi nga xam moo nekk moo fi nekkal Espagne ak ambassadeur bi fi nekkal Angleterre ñoom ñëpp biñ ñëw Tuuba xam nañ ne am nañ immunité diplomatique bu ñu defoon boppam leen tam kenn du leen mën a wax dara waaye ñoom seen bopp xam guñ xam àdduna ak xam jamono ak xam fi ñu jëm tax na kenn ku ci nekk dafa muur boppam loolu yaakaar naa gis ngeen ko ci sàq bi bi ñuy siyaare si Touba ay jigéen lañ ñoom ñëpp mais dañoo muur seeni bopp ambassadeur Ukraine Ukraine ak Espagne ak Angleterre loolu rek yaakaar naa ne ku mu doyul nag ci ab taalu bi ginnaaw ñoom ñoo ñooy xam duñu jullit ñoo xam war may dëkk bi bay sàmmonteeg moom te am nañ immunité diplomatique am na noo xam bu ko defoon itam kenn du ci man dara waaye ñoom nag dañoo xam luy àqi doomu aadama xam luy àqi moomeel ba tax na bii ñëw Tuubaa ñoom ñëpp dañoo muuru waaye fekk fi lu yéeme itam ñoom ñëpp kenn ku ci nekk gis li nga xam moom ko fekk bu loolu jàllee ma dikk ci ñi nga xam dañuy màggal moo xam yi dëkk ci dëkk bi moo xam ñi nga xam dañuy ñëw maa ngi leen di ñaan Sëriñ Tuubaa dafa fonkoon fas lool fonk ko lool fonk lépp la fonk bàyyi ma rek waaye fas yi ñuy dawal ci biir Tuubaa ak mbaam yi tekk leen ay saret waaye rikk waaye yow mi nga xam ni yow da ciy da nga dugg foo mën a jóge ci Touba loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti xoolal fas wi ndax am na góom wala déet ndax fas wi yooy na wala yooyul ndax lii yaakaar nga ne attan nga cee toog lu mat trente minutes ci kawam waañ di ko dóor ay yar nga toog ci dëgg la li ma bëgg wax mooy mënees na koo jëfandikoo muy war waay waaye nag yow mi dugg benn xoolal ndax fas wi nga dugg xam nga ni boo ci toogee mën ngaa nit beneen boo xamante ni bii da nga ca dugg te boobu du dara du ko dal ndax am na ci fas yoo xam boo leen xoolee xam ne lii mënees na leen a war te loolu wax dëgg yàlla war nanoo wees foofu ndax lu mel ni saytu dëkk bi ak li ci war lépp war naa def ba jamono egg ci fas wuñ séen nga toll ci benn situation bi ràgg genn ràgg am ay góom feebar di soox say tànk métti ñu tere borom ni ko waroo ko dewal ndax loolu bokkul ci sant yàlla loolu loolu bokkul ci sant yàlla bokk nañ rek li nga xam ne mooy ku ciy war nag nga xam ne yow xam nga da nga cee taxaw rek di ci di ci dugg jëm jumaa ji foo mën a jëm nga xool yow saret bi ngay dugg ndax li mu suuf fees na ba ëpp wala ndax fas wi wax dëgg yàlla man war naa cee dugg nga nekk beneen bu beneen ñii boo xam ne fas woo suur na am na doole am na kart na nga dugg ci loolu nag ñi ñoo koy xool si loolu moom ki moo koy xoolal boppam ba def ko waaye ñi yor sareet ñoom seen yor nekkul ci loolu ndax léeg-léeg nga seen ci fas woo ne tànk di metti muy soox muy dóor muy dóor rek nga gis ko fas woo ay góom ay naj xëcc laab di dóor ba noppi nit ñi nekk ci mu ñaqto xëpp nga xool ni muy noyyee loolu yaakaar naa ne képp ku di jullit kulib taalibe yooyu jëf ta sàggane te woyoful itam loolu bëggoon naa ko bàyyiloo xel baax a baax a baax li nga xam nag moom moo ciy des ci loolu li ci des lu ñu ci fàttalikuwaat rek danañ ci dellusiwaat ci naab suñu bopp naab ñëpp la ma waxoon moom wax naa ko ci biir li nga xam mooy jàngati ak waajal magal gi loolu mën nañ ko dégg nee naa li mu ngi sàq mi juróom-ñeenti jotaay la yoo xam ne benn bu ci nekk ñu ko tuddee yóbbu yóbbalu magal gi waaw incha allah rabbi dañ ko tàmbali di tegaat suba ba juróom-ñeent yëpp jeex nga xam ne ku ci bëggoon a xam ni ñu waxee ci màggal gi rek lu ci baree bare du lu rëcc di nga ci mën a jariñu wala nga jox ko keneen mu jariñu ci loolu daal bëggoon na leen koo egg tey jii incha allahu rabbi ci àjjuma yi di ziare ñëpp di wax ni yàlla na ñu yàlla eggale ci màggalu jàmm ñu màggal ko jàmm ni ko borom bëggee ci santale ko yàlla ba nu am ci ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi am ci ngërëmul boromam nga xam ne dañuy wér ni lii moom def na ko ci sell goo xam ne yàlla ci boppam ku munta am loo xam ne yàqin la itam sam xel dina dal bu wér ni lii nga def sell na te Sëriñ Tuubaa dina ci bëgg te bu Sëriñ Tuubaa bëggee yàlla bëgg ci te Sëriñ Tuubaa loolu la bëgg ndax bëggul bis bi kenn moomu ko sëriñ bi moomu ko yonent bi moomu ko bañ na ko ba ni sant leen ma yàlla kon bis bi yàlla rek ko jagoo kon nag ku ci bëgg a dem ku ne xam nga boo jëm ci yàlla ak boo koy sant ak boo def xam nga li war a def loolu nañ ci bàyyi bàyyi bàyyi xel baax a baax a baax ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp luñ ci war a dolli war rek ci biir waxtaan yi nga xam moom la ñuy def ci màggal gi jëmale ko ci sëriñ bi danañ ko ci dolli incha allahu rabbi buñ gisee ne lu jàmp la itam lu munta ñàkk luñ fàtte woon ngir wax ko wax nit ñi dinañ ko waxtaanee waxtaanee waxtaanee ak ñoom waaye rek kenn ku ci nekk boo dégloo yu wees woon rek yu ci bëree bëri di nga ci mën a jariñu wasalaamu ala man ittaba al-huda alhamdulillahi al-karim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني